jëf euh, ami internet bu Sénégal Buzz 221 mbokk yi ñu ngi leen di nuyu rek saa su ne nañ leen daan nuyoo fi ci Sénégal Buzz 221 ni ñu koy defee ak yéen saa su di leen dalalal ay ndaanaan di leen dalalal nag ñi nga xamante ne yéen ngi leen bëgg a gis di leen xaar fii ci Sénégal Buzz 221 waaye ni ko noonu nag la ñu dalal ndaanaan loo xamante ne nag Sénégal xam nañ ko àdduna xam ko ndax liggéey bu am solo bi nga xamante ne mi ngi koy def ci réew mi di faafa sénégalais nag ràññee ko bu baax a baax a li nga xamante ni nag moo di yu yi ci moom la ñu dalal fii ci Sénégal Buzz 221 yoog mbokku internet yi Fafa maa ngi lay siyaar le frère. maa ngi lay bëgg bu baax. di la fay di la jox sa wàccuwaay di kontaan bu baax ki dalal bi. Mhm. ndax euh, Sénégal Buzz 221. day site boo xam ne nit ñi dañ koo respecté euh, ci maanaam professionnalisme ak ci seen justice maanaam seen justice waaw ah, loolu moo tax damay sawar bu ngay ñëwee jël si ma wax ak yéen. waaw maa ngi leen di fay bu baax di fay sénégalais yi di ñu seetaan mm-hmm. di ziar ñëpp di bëggee ñëpp di nuyu samay waajur yi nga xam ne ñu ngi toog di ma seetaan mm-hmm. di nuyu samay am di jàmm samay dëkkandoo samay xarit mm-hmm. sama sëriñ bàyyi ma kenn maa ngi nuyu Sénégal ñëpp cat ba cat macha allah yaa ngi nuyu Sénégal ñëpp cat ba cat rek noonu la nuyoowee ñi nga xamante ni moo di internetu Sénégal Buzz 221 waaye nag li nga xamante ni nag moo di suñu waxtaan nag laalaa ñu koy door nag dinañu waxtaan ci événement bu mag bi nga xamante ni nag àdduna ngi koy waaj rawatina ñi nga xamante ni moo di doomu Saalum yi ndaxte Bercy Saloum moom faa fa yombut de et promoteur bu mag boobu nag di Leela Diaw woote ko naka ngeen di waajal li nga xamante ni tey moo di événement boobu nga doon li nga xamante ni moo di chargé de communication bi waaw événement bi dañu ngi koy waaj ñi ñuy waajee événement yu mag yëpp te bii sax dafa exceptionnel waaw parce que si Saloum yaakaar naa ne fu waaye nekk ci réew mi rek dégg nga coow li waxuma réew mi sax waaye bitim réew ñëpp dégg coow ndax bés bi ni toll ki tëgg bés bi moo toll noonu kii tëgg bés bi noonu la toll muy Nogay Jaw borom Leyla Couture ak mhm. euh, Leyla Even Senko mhm. ak mariage mi nga xam ne mooy joué bés mhm. ñoom ñaar ñëpp yaakaar naa ne buñ booloo ne ci biir bu bëriwul coow sax mat naa waxtaanee waat ñii rek la mën a toll am na ampleur ñu ngi liggéey ci communication bu baax a baax ñu ngi jéem a jaay événement bi parce que événement Wally Seck doar fakal la moom boo ko jaayul sax mu jaay boppam waaye li ñuy war ci communication ñu ngi koy def ba Wally Seck mi nga xam ne mooy joué bés bi xam ne cofuñ bés bi mhm. waaw yaakaar naa ne liñ déployé ci communication ci événement bi événement bu ne toll am na ci réew mi événement bu toll lu ne am na ci réew mi mhm. waaye yombul di déployé lu toll nii mhm. financièrement en pour def ko ci communication. rawatina nag di déplacé waaye ku yóbbu Kaolack nangaan Saalum. di sargalaat waa Saalum. di joxaat waa Saalum seen wàccuwaay di xam ne. Saalum Saalum yi mun nañ def loo xam ne kenn mënu koo def ci réew loolu la Nogaye Diaw woote loolu la bëgg a def te incha allah dina am te nañ ci yegg ak jàmm. Mhm. ba waale dalay joué ba tey wala ñu koy woo maa ngi soogee dégg Bercy bi fu mu nekk nii moom daa mel ni da ngeen dëggal seen bopp fas ko Saalum. en général di déggale artiste ka Dakar mhm. yóbbu ko Kaolack bu ñëwee taxaw rek joué wala mhm. ñu yóbbu ko ci benn salle teg ay chaise mu mhm. ndaw siine lay am France di am Angleterre di am yeneen ak feneen ak feneen moom lay def Kaolack moo waral turi Bercy bi ñu ne ko Bercy ngay déplacé mu ne Bercy lay andiwaat ci côté décor scène bañ na ko ba dafa jël xel comme bâche en général li ngi di jël xel ko bâche Kaolack Dakar lañ koy jël Dakar suñu conseil yëpp ngay jël Xelcom Bache en mm-hmm. waali moo koy jël ci événement am yu mag yi. Mm-hmm. mu jël Xelcom Bache fay koy millions yu bëri. Mm-hmm. pour ñu ñëw aménager stade bi def ko village. yaa ngi dégg des tribunes des chapiteaux. scène bu mag lumière son et lumière. déplacé Xelcom Bache ñu stade bi aménager ko Bercy waaye door a joué. nee na seen nee na waa Kaolack loolu lañ mérité. Kaolack dafa nekk région boo xam ne. dafa war a gën a dund Sénégal. Mhm. dafa nekk région boo xam ne dafa war a gën a naat Sénégal. Mhm. ñu koy seetaan ñan ñoo koy seetaan doomu Kaolack. Mhm. doomu Kaolack bi ne déedéet man damaa jóge Kaolack ñëw ba Dakar. liggéey fi daan fa sama doole ba yàlla di ma dimbali damay dem bokk koog waa Kaolack ni ma koy bokkee waa Kaolack mooy liñ liñ yaakaar na leen jomb. te jomb leen ñoom rek ko mérité woon ñu daa ko andi def ko fa muy déplacé Wally lendemain tabaski nga xam ne ñëpp a soxla artiste boobu lendemain tabaski mhm. région bu nekk ci Sénégal tey ji bëggoon nga Wally jouer foofu lendemain tabaski parce que c'est un événement mhm. tey kenn Dakar ji fi dëkk bëriwul ku ci nekk da ngay jib sa région jullee fa mm-hmm. ñëpp buñu dajee ci région bi bëgg nañu am loo xam ne mooy dundal région bi bëgg nañu am ambiance buy yëndal région bi mm-hmm. xale bi décroché ko def ko biir kaw Kaolack nangaan ba nga xam ne région yi nekk alentour de kaw Kaolack sax mm-hmm. lendemain Tabaski Kaolack la ñuy ñëw feetu see uh-huh. kon ñun ñoo réussir ñun ñoo am loolu noonu yombul woon waaye yàlla jegleen ne ko ñun ñoo ko moom ñoo ko réussir ñoo ko décroché ñoo ko gagné yóbbu ko Kaolack te dañ ko def pour Kaolack yëpp aussi Saalum yëpp mhm. ak li wër Kaolack yëpp dañ ko def pour ñoom macha allah xam naa ne fu mu nekk nii moom waa Dakar a ngay wàcc waa Gambie waa ñi nga xamante ni nag ñoo nekk ci diaspora bi ñu ñëppay bëgg a tabaski ndax événement bi ah mhm. waaye ba tey rek euh, ci li nga xamante ni tey moo di événement boobu ak coow li nga xamante ne jamono ji mi ngi ci kaw artiste boobu di Wally Seck mhm. ban impact la indi ci li nga xamante tey moo di événement bi ngeen di wàcc waaw xam nga laaj nga ma importance sax am na impact amul impact Waly Seck yàgg naa coow. Mm-hmm. waaw. Waly Seck. plus coow. Mm-hmm. égal réussite de Waly Seck waaw. Waly premier single am ba léegi. Mm-hmm. coow la àndal. coow léegi Waly ñoo ànd moo tax Waly yegg si fii. li waral coow yi nag gën a métti fu nekk nii mooy mbetteel da cee am. ndax Waly Seck fi mu yegg si fi mu yegg si nii. dañoo yaakaarul woon ne. ak durée bu gàtt bi temps bu gàtt bi ni Wally war naa mën a yegg sa fii xaaruñ ko xaaruñ ko woon foofu mhm. loolu moo tax coow yi gën a métti mhm. ak yiñ koy jiiñ nii yëpp mhm. su ma ne Wally sax du wax waaw su ma ne Wally du wax parce que tubaab dafa ne ne considère pas une personne une personne à ce qu'il mais regardez ce qu'il a fait Wally dafa jëf ku njëratu bi wax wax ak jëf dañoo xuloo wax ne ko fu ma yenn doo fa baax jëf ne ko bu ma yegg nga tux Wally Seck daa jëf ci réew mi ñun ay taalibe Serigne Touba la Cheikh Ahmadou rek lañ gëm te moo ñu gënal Wally Seck am na loo xam ne Wally bu ci nekkoon ñun dañoo jaxasoo ak Wally dëgg dañoo xam Wally dëgg am na loo xam ne bu ci doon yëngu wala bu nekk ci du ma tudd tur bi comme ni muy bañee def promotion bi noonu laa koy bañee def man nii ni kon ñu bàyyi fi Wally ànd ak Serigne Touba la Serigne Touba ñu gënal Wally waaye buñ ñemee taxaw ñu tàllal ñuy micro ñuy wax ci Wally Seck ba koy layal dañoo xam Wally ki mu doon xam ne fi ñu koy séntu newu fa te duñ ko fa mës a gis ndax taalibi Sëñ Tuubaa la te Baay Faal la te dafa am juddu. dafa am juddu bàyyam def dara ci réew mi yaa ngi dégg moom mu xeeb la bàyyam defoon mu ñëw di def lu ko jéggi waaye c'est normal bu sa bàyyi defee dara nga def dara faw coow yu bari ndax bàyyam déggoon na ko waaye nag dama koy soññ ne ko taalibe la murid la te fi mu yegg si nii c'était évident te yegg si na fi ba romb ko te coow li jig na ko nañ gën a coow kenn ko teree dem ma lay doon ne waali xewagul ñu bëri dañoo foog ne waali dafa xew waali xewagul. kon ak coow yi xewagul. waali xewagul day waaj a xew. <laughs> maa la ko waali day waaj xew. waali day waaj a ah. loolu tamit doon ay kàddu yoo xamante ne nag c'est bien pour ñuy wax ko ci préparer li nga xamante ni moo di événement bi waaye ni ko tey rek ba tey ci li nga xamante ni tey moo di association yooyu nga xamante ni tey dañoo génnoon ñoom ñëpp déposé ndoo seeni i pour ki nga xamante ni tey moo di Wally Seck ci li nga xamante ne ñu ngi ko koy tuumaal tey Wally def sortie sortie bi Wally def nan nga ci jàngat faaf. bi Wally def mooy. Wally waxul pour boppam. je sais que Wally ku xam Wally xam ne Wally am na doole yu coow. am na doole yu déglu. yàgg naa dégg tuuma. yàgg naa gis ay pexe. Wally moog loolu ñoo dëkk. mais Wally bu tontoo tontuwul pour boppam dafa tontu pour ñi ko wër. boobu déggooy mi ngi insister ki njabootam ngi insister parce que ay doomam léegi dañoo bokk ci réew di jàngi ci ay école mm-hmm. am ay xarit yaa ngi dégg am ay fréquentation am na loo xam ne bëgguñ dégg ñu ne seen bàyyi ngi ci te ay tuuma la mm-hmm. ay tuuma rek la mm-hmm. muy leeral ah, visa bi njabootam ba diñ leen di xoolee buñ génnee xam nga yooyu dafa am solo te nit ñi yàq nit dañuy fàtte ne kii dafa am njaboot te Sénégal li mi la dëkk dañuy yàq nit pour seen propre int ci concurrence dafa ñaaw. mais ni mu ko waxee euh, mën fekkee bataille musicale la mën nañ ko yemale ci musique ah. dama jàpp ni bataille musicale moo indi coow xam nga musique bi amatu ki amatu amatu adversaire kon bataille musicale bu ñu ko am bataille mooy ko tollool di xeex ak moom wala di xëcc ak moom. Mm. waaye boo ci amul nawle feneen day jéem a xeexee. Mm-hmm. xam nga waa li ki mënut a bataille ak moom ci musique fu mu nekk nii boo mm-hmm. xalee yàlla. Mm-hmm. li ñuy wax ni suñu aqulaay taalaay moo tax ñu koy wax. tubaab dafa ne nul n'est plus aveugle que celui qui se brûle sous le soleil mhm. et avoue qu'il n'a ni vu ses rayons et ni senti sa chaleur nit ki loo ko bañ bañ bañ bañ bañ bañ nangul ñu ko yàlla def waali fi mu toll nii amul concurrent ci musique sénégalaise mhm. kon mënuñu bataay ak moom ci musique xam ci li ñu bataay ak moom ci ay sos ay tuuma créer ay yëf jiñ ko ay yëf daa teg koy tuuma sosal ko yàq deram waaye nag ni waalis ni ni ñi def lu bon amee wala di ko wax noonu amee ñi nga xam ne lu baax la ñuy def wala ñu koy wax ci réew mi nii peut-être nag ñiy wax lu bon wala ñi yàq ñoo gën a fës ci réseaux sociaux yi ñoo gën a am jot waaye ñiy def lu baax a ngi fi am na loo xam ne waalis ki nekkoon réew mi dofuñ réew mi gumbawuñ réew mi taxuñ te kilifa yi ne ci réew mi wala ñu baax ngi ne ci réew mi dara jotu leen am na loo xam duñ ko accepté yoon yi mu di ko accepté mhm. waale am na loo bu ci newoon day mhm. par force réew yëpp dañ koy xam mhm. kon tànkam sax du ko teg Touba waaye dañ ko accepté Touba accepté ko fu ne te lan moo tax tey nit ki li mu wax mënuñ ko jàpp li mu def mënuñ koo jàpp ci ci ay tuuma rek lañuy la ñuy wéeru mooy tey waali xoolal li muy def ci lu baax waali def na sorti mais il est mal placé wax yu baax yi muy def mais man xam naa ki dara. Mhm. waal yi day xëy di wër ci hôpitaux yi. ànd naa ak moom plusieurs fois li may wax nii kenn nettaliwu ma. Mhm. amoon ay diwo ko wax man maa ànd ak moom. Mhm. ñiy wër ci ay hôpitaux. muy yee malade fajar. barke yonent ci Yàlla Muhammad di leen jox ay enveloppe cent mille francs kee déggu ko. balaa moo leer ñi bu waat na këram. di romb nit kuy bale ci buntu këram fajar mu ook. yëkkati enveloppe jox ko. yaa ngi dégg romb taximaan arrêté ko kaf ak moom ne ko daa mel ni amagoo xarit mu koy tooñaan amaguma xar mu jox ko ne ko dama génne xaru tabaski yooyu la dëkkee yu baax yooyu noonu pourquoi pas ñu wax yu baax yi bëgg a nekk fii di sos loo xam ne amul te yu baax yi ñëpp ko gis te gi waale ñu defal lu baax yëpp te xamu leen buñ génnoon def vidéo réseaux sociaux yi day explosé ñu defal lu baax yëpp te gisu leen waaw wala xamu leen buñ génnoon ñoom ñëpp def vidéo réseaux sociaux yi ñooy ñooy ñooy explosé nag ñun ñoo ci am accès ci euh, réseaux sociaux yi ñun ñoom am accès ci site internet yi peut-être ñun ñooy mën a wax c'est la première fois ma génn wax ci Wally Seck man faaf bi ma xamee Wally ba léegi ça vingt ans bi xamee Wally Seck def naa lu ne tàll nañ ma micro fu ne c'est première fois ma génn dara xew ma wax ci Wally Seck parce que il est temps ñu bàyyi ki mu liggéey il est temps ñu bàyyi ki mu bëggal Sénégalais yi. il est temps mu décroché loo xam ne. Sénégal amagu fi woon andil ko Sénégal te mun na ko. te il est bien placé pour def ko te ci yoon boobu la nekk nañ ko sigaaru di julli ci buntu place bii nii mhm. ku fi romb danaa la kii nii moo àndee mënu woon jullee ci biir day yooneew mhm. boo taxawoon ci biti fii di tux mhm. kenn la wax dara dañuy jàpp ne normal société bi la bokk lu baax dañ lay découragé boo nekk ci sa bopp moo la a génne ci li nga ni moo di vie bi ay ne nag kàddu yu am solo la ci mu jëmee jugee ci moom waaye nag ñu tëjee benn point rek bi nga xamante ni nag ñu bari nag eh, tey Sénégal yi jëf jooju tamit naqari woon na leen métti leen mu daloon tamit ñi nga xamante ni moo di ay feccikatu sa frère Wally Balago Seck di mm-hmm. Ameth Thiou ak Amady eh, nag tey àtte na leen mm-hmm. ñu teg leen li nga xamante ni nag moo di un mois yi ñu war a tëdd ci kaso bi mm-hmm. tey lan nga mën a wax tamit ci ma leen di wax mooy ñu muñ ndax cat mënut a ñàkk te xëj na luy sarax bi la daa dal ci seen kaw nag mën naa dal ci kaw ku ne ndax commune Amady Badiane ak Ameth xam ne lii ñu ngi koy fecc bu yàgg bi ñuy toppandoo sidiki et sukke di sol ay pànca yu ndaw di di ko def di dàq dugg ci mbooloo mi def nañ ko def ko ci kanamu président de la république Abdoulaye Wade kon yaakaar naa ne euh, bu ñu demee ba tey gii nii loolu ñu war leen cee daan loo xam ne seen xale ba ba mag fu ne seen bu ne fooye nañ ko fa te mu xam ne cat moo ñëw mais may soññaat aussi sama frère wala samay frère muy staff Wally Seck mhm. plus de vigilance mhm. parce que yàqkat yi fi nekk dañuy jógee mhm. yàqkat yi dañuy jaxasoo staff Wally Seck mel ni ñuy defar àll dañuy yàq bu ñu dolli vigilance bañ a wóolu ku ne xam ne pexe yi mun naa jóge fu ne xam ne li ñor nii ñëpp ko ñëpp ko bëgg mhm. li ñor ñëpp ko bëgg a li ñor ñëpp bëgg mu wàcc mhm. kon ñoom ñooy concentré wu mhm. dolli plus de professionnalisme dolli plus de vigilance pour yii nii bañ am accès seen biir loolu soññ ma leen di jox la parce que nag min ngi réew mi ah xam nañ li xew ci réew mi xam nañ li fi am bu baax a baax baax a baax a baax a baax kon nag nañ dolli vigilance. waaw mhm. macha allah dernière kàddu yi pour Bercy Saloum bi rek ñu tëj lan lay doon. dernière kàddu yi mooy li ma bëgg a wax mooy. Mhm. ñu ngi woo ñëpp mhm. Saloum. lendemain tabaski. ci stade ba ku ñëw di nga am surprise dafa nar a am. ci événement ci show ci son et lumière ci spectacle la fa nar a am dina leen bett dina kaw seen njort waaw Wally Seck préparé nuy garaaw nogay njoow borom lay laa euh, events moom it waajal na yu garaaw ak staffam pour juste rek ñëpp nekk jàmm côté sécurité tamit bu kenn tiit waaw kuy ñëw côté sécurité bu kenn tiit parce que li nar a nekk sécurité gëm naa ne dina dina bett ñu bëri. buñ tiit waaw dina ko gën a garaaw. <laughs> parce que lañ loolu mm-hmm. Mm-hmm. waaw parce que événement bi daf ñoo ñor. Mm-hmm. te daf ñoo jaral. te kenn mënu ci dara événement bi dina am te na réussir ci jàmm mi ngi nañ baal si ki jàmm. dina ci jàmm sécurité bu doy moo fene puso du fa réer. waaw loolu maa ko promettre te mooy am biir si Saalum incha allah. am na ay table am na ay entrée yu yomb. Mm-hmm. entrée cinq mille francs mm-hmm. VIP dix mille mm-hmm. am na table ay un million yoo xam ne ñu ko réservé ñi nga xam ne autorités yi dañuy ñëw kilifa yi na table cinq cent mille yoo xam ne tamit dañ ko gérer ñi nga xam ne dañuy taaba taaba dañuy bëgg toog fu koofo ñu ñëpp dañuy ko dañu leen ñëpp ci événement bii nii dina féex waaw laan demee tamit biir si wala de macha allah waaw ko wax li may tëjee mooy nit moom ki jëf baraw la mm. munoo wax ba dab ko wasalaam wasalaam ki jëf baraw la mënoo wax ba dab ko loolu nag di ay kàddu yu ama am solo nag mbokki yi ni na leen ko dalalee woon fii ci Sénégal Buzz 221 seq nag moom li nga xamante ni moo di ay waxtaan seq nag moom li nga xamante ni nag moo di ay kàddu yu am solo yu mu génnee waxtaanee ko ak sénégalais partagé ko ak ñoom nag di faafa mbokk yi di kontaan bu baax dinañ jox dig daje ci beneen numéro jërë ngeen jëf